bismillahi arrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi alambiyaai walmursalin sayidina wa maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahaabatihi wattaabiciina lahum bi ihsaan ila yawmi ddin bokki julli di ñuy déglu noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu xam ngeen ni ci fan yi nu jàll lanu jëloon xisab sayiduna xuseynu radiallahu anhu akuk jóge màkka jëmoon ca Kuufa te ñu rey ko foofe ca Karbala nu amoon yéene tey indi gannaaw rey ga xew-xew yi am ci monde islamique bi ndax jig na àdduna bi walla jigu ko xew-xew ya ca am lan amoon yéen indi ko ak li ñuy jànge ci xissa bi ñu wax ni délégation Kufa bi bi ñu jógee ca ibnu Ziyad andi bopp Xuseyn ci Dimashq dañoo dugg ak moom ca biir jàkka ja ñu fekk fa marwaan ibnul Hakam mu laaj leen ni leen lu ngeen def ñu nettali ko xibaar bi ni ko xuseynu dafa ànd ak ab lim nu dajeeg ñoom ak sunuy gawar ba ñu sàkkoo ci ñoom ñu wàcc si ci atib abdullah ubaydullah ibn ziyad ñu bañ rey nañu leen ñoom ñëpp ba seeni bopp yaa ngi nii ak ña ñu jàppe ci ñoom ba ñu waxee ba daaneel marwaan ibnul xakam dafa daldi ni bërët dem bàyyi leen fa naka noonu mbokkam mu ñuy wax yaxya ibnul xakam ñëw na moom itam laaj leen ñu nettali ko lu mel ni lañu nettali marwaan mu ni leen yéen day tëj ngeen seen bunt seen diggante ak muhammad sallallahu alayhi wa sallam yawmal qiyaam ni leen nag noppi na ma am ak yéen ab jataay mbaa may séqateeg yéen dara bis ni ki tey bi mu waxee loolu moom itam dafa daldi jóg won leen gannaaw jële nañ ci shahru bnu hawshab wala al shahru bnu mu wax ni benn bis dañu nekk fa ummu salama soxna si yonente bi sallallahu alayhi wa niski si nu dégg jigéen ji yuuxu di ñëw ne bi mu ñëwee ba ci ummu salama dafa wax ni rey nañu xuseynu ummu salama ni ko def nañu ko yàlla na yàlla feesal seeni bàmmeel ak safara bi mu waxee loolu dafa daldi xëm nu jóg dem bàyyi ko fa ginnaaw rey xuseynu ay xew-xew yu bari am na ci ba ca gëna a rëy mooy xew-xewu alxarra ci atum juróom benn fukk ak gàddaay gi gidam benn fukk ak ñett ci gàddaay gi xew-xew boobu nu demee woon waa màddina bi Yazid reyee Xuseynu wala bi ñu reyee Xuseynu ci ak kilifteefam dañoo mere Yasid ab kuréel walla mbooloo ci waa Madina daje fa minbar ba dal di tàmbali di summi seenu jaayante ak Yasid nit ñëw foq ak kaalam daldi ni jaayante gi ma jaayante woon ak Yasid summi naa ko nii ma sumee sama kaala gi daldi teg kaala ga ne keneen dikk summi aw dàllam ni summi naa sama sama jaayante ak Yazid nii ma summee sama dàll wii noonu lañuy def ba dàll yu bari daje fa ak kaala yu bari daldi di dogu it ci génne gouverneur bi nekkaloon Yazid foofee ci Madina muy Ousmane bun muhammad bun abi sufyaan noonu lañu ñu dogo ñoom waa madina ci génnee mboolem ku bokk ci bani umaya foofee ci madina banu umaya daje ci kër marwaan ibnul xakam waa madina wër leen wër leen ndomba ali ibnul xuseyn zeynul abidina moom bokkutoon ci mbooloo moom yi doon summi seenu jaayante ak abdullahi ibnu umar ibnu alxataab ñoom summi wuñu seenu jaayante ak yazid kenn ci waa kër abdullahi ibnu umar it summiwul ak jaayanteem muhammad ibnul xanafiya moom sayidna aliyun it nga xam ni gannaaw bu ñu reyee xuseynu mu mag ci doomi sayidna aliyun yi moom itam laaj nañ ko waaye mu gàntal gàntal gu tar noonu banu umaya bind yazid li ñu nekk ak doyadal gi ñu leen di doyadal ak xiif ak mar wu tar wi nekk ñu xamal ko ne ko boo yónneewul fi yónneewul ku nu xett li daa ñu nu faagaagal nun ñëpp noonu yazid laaj na ni waaw xanaa matuñu junni nit ñoom Banu Umayya ñu ne ko ah mu ne ah te ñu woon a jëngu xeex ba fu mu yem baax na waaye noonu mu yónnee ci Amr ibn Saïd jàngal ko bataaxel bi diisoog moom ci kan la fa war a yónnee sàkku sax ci moom mu sàkku sax ci Amr ibn Yasid moom yi ni ko teema la yebal waaye Xamr bañ ni ko kat ba nga ma fay follee booba Madina dafa takku lépp ni tekk jamono bii nu toll nag dereti Quraysh yu ñuy tuur bëgguma féetewoo loolu dal ni ko danga fay yebal ku ma leen gën a sori loolu mu waral Yasiid yabal fa ku ñu wax muslim ibnu ba boole koog lu mat fukki junni nit ak ñaar ñu war ak fukki junni fukki junni ak juróom ñu def tànku nen ñu warut digal ko it ni ko boo demee Madina nanga nga leen woolu mat ñetti fan ci ñu dellusi si topp ma bu ñu dellusee baax na bu ñu dellusiwut nag nga dimbandi ko yàlla te xeex ak ñoom waaye noonu la ko digalee ni ko saa boo leen gañee it na nga dugg màddina daganal ko ñetti fan mu dem xeex ak ñoom xeex bu metti rey ci ñoom mbooloo mu bari ci ay kilifa rey ci jàngkat yi ñu bari ñu giir alal ya alal yu bari ci alal ya waa Madina ay bon bon yu bari ak yàq yàqu yu bare baree bari xew fa wax nañu ni soldaar yi jigé jax dugg nañ ci biir Madina yi def yu bon yu ne ba jaxasu nañ fa ak ay jigéen ba wax nañu ni mbooloo ëmb nañu ca ñu amul jëkkër noonu Yasid bind Ubaydullah ibnu Ziyad yabal ko Makka bëgg mu dem encercler ko wër ko wër ndomba ibnu Zubayr ma fa nekk foofu ibnu Ziyad dafa gàntal ni ko nag du ma booleel ab kàccoor ñaari mbir yooyu nag muy rayal ko doom yonente bi sallallahu satu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak di xotti ormay kaaba ga dal ñaar yooyu duma ko booleel ab kàccoor te fekk dañuy wax ne ginnaaw bu mu rayee Xuseynu ndeyam di Marjaana daf ko caa yedd lool waaye bi Ubaydullahi ibnu Ziyaad gàntalee mu yebal fa Muslim ibnu Uqba moom mi nga xam ne moo def jëf ji ca Madina yebal ko fa ngir mu xeexi ak ibnu Zubayr waaye ab diir la am lañu doon sàkku sunu boroom xañ leen ko ngir Yasiid kat loolu lépp bi mu koy def ak ngóoram rekk la bëggoon a taxawal waaye sunu boroom xañ na ko loolee mu doon sàkku ndax yàggu fi nguur gi matul ñeenti at muslim ibnu xuqba moom it ay fan la ci teg daal di faatu ginnaaw xew-xewu màddina bi mu yebal fa ku ñu wax Xuseyn ibnu Numayr boole ko arme bi ñu jëm Màkka ba mu demee moom Xuseyn moom i ma nga wàcc ca bitti Makka ibnu Zubayr génn fekk ko fa ànd ak waa màkka ñu xeex xeex bu tar ñuy sànnente ay safara ba àgg nañu ci lakk miiru lakk euh, riddub kaaba gi ba laal miir ba noonu lañ continuer wër ndom ba màkka li tàmbalee ci weeru tamxarit ba tàmbali weeru gàmm ba ci njëlbeen weeru gàmm foofii lañu dégge tàggeb Yazid ibnu Muawiya bi mu faatoo doomam ju ñuy wax Muawiya bi mu tuddewoon baayam moo ko wóotu ci ndigalam moo joxe woon ndigal na ko wutu waaye doom jooju suñu borom def mu doon ku baax doon jàmmukatu yàlla waaye diirub xilaafaam nag yàggul wax nañu ni ñen fukki fan la am ci xilaafa gi am ñu ni ñaari weer ñi ni ñett ñi ni ñeenti weer wax nañu ni diirub diirub li muy toog xalifa it dafa nekk ci tawat bi Yasiid faatoo nag arme boobu yi nga xam dañoo waroon màkka dañoo daal di lalli jóge màkka bi ñu delloo saam mbirum ibnu zubayr daal di tasaaroo ci xijaaz ak li ko wër nit ñi jaayante ak moom abdullah ibnu zubayr ginnaaw yasid foofu yi ci xijaaz ak li ko wër mu daldi di fab rakkam mbokkam mu ñuy wax Ubaydullah ibnu Zubayr eh, def ko muy kilifa ca Madina mu doon fa amir foofu la joxee ndigal ni nañu génne mbooleem bani Umayya ci Madina dañ leen génne Madina ñu daldi di laxas jëm saam te booba Marwaan ibnu Hakam ma ak doomam ji ñuy wax Abdul Malik noonu waa basra yónnee ci abdullah ibnu zubayr ñoom itam di sàkku ci moom mu dimbule si leen ndax xat-xat yu bari lu mat ñeenti kilifa ku fa nekk rek ñu sàkk ci moom pexe euh, sorxo sorxo ja bari lool dara mënu faa tegu ci aw yoon moo tax ñoom ñoo sàkkul seen bopp mu yable fa ibnu zubayr bind anas ibnu malik ni ko na leen di jiite ak julli daal di yónnee ci abdullah ibni omar moom ibnu zubayri yónnee na ci abdullah ibnu zumar omar ak muhammad ibnul hanafiya yónnee ci ibnu abbas ni leen nañu jaayante waaye ñu bañ ñu gàntal bañ a jaayante ibnu Zubayr nag mbooloo mu bari mbooloo mépp daanaka mën nañ ne mënu islam bépp jaay ñu ngi jaayanteeg moom ci weeru rajab ginnaaw bu ñu amee ñetti weer yoo xam ne amuñu imam mu yeble ca koofa Abdurrahman ibnu yebal ca Kuufa ku ñu wax Abdurrahman ibnu Yazid Misra mu yeble fa ñu jaayante jaayanteeg moom mu yeble ci addahaak ibnu qays ca Shaam moom itam mu jaayante an nu'maan ibnu bashir ma nekkoon ca xemas jaayanteeg moom noonu bi xuseyn ibnu numayr jógee xijaaz Ubaydullah ibnu Ziyaad it jóge Basra ñëw Saam waa Banu Umayya tuxoo Madina ñëw Saam dañoo daldi daje fa Marwaan ibnul Hakam te booba Marwaan mu ngi amoon yéene dem jaayante ji ak ibnu Zubayr waaye ibnu ziyad xam ni ku dul waa ba ni bani umayya bu yoree nguur gi wóorul ci moom moo tax ñoom ñu taxaw temm ci ni ko mukk ëpp naa xalaat di wax ni ko yow yoway kilifa xuraysin yaa fi mag fi mu toll nii yaay sangu bu waa mbir mi kenn gënu la ca yaay noonu lañu waxee ak marwan ibnu xakam ba mu ba xelam dëpp nekk ci ñu jaay war ñu war a jaayante moom mu ni leen dara weesut dara faatut ndax di ànd ak ñoom ci liñ bëgg fekk ñu wax Hassan ibnu Malik ma nga jaayante ba nag waa Ordon ci jaayanteel ba ma nga jëloon jaayante ga foofee jëlanteel ko waa jëlal ko waa ni Umayya jëlal ko ba ni Umayya waaye nag mi ngi doon wooteel ab jarbaatam muy Xaalid mii doomi Yazid ibnu Muawiya xaalid mii doomi muawiya ibnu yasid yónnee ca daxaak ab leetar wax ko jaayante ko mu bëgguñ jaayante ko ak xaalid doomi muawiya mu ndaw mi waaye bi mu jàngee bataaxel bi ci kanam mbooloo mi ñenn ñi nangul ko ñi ci des weddi ko ba coow lu bari fitna jàq ko foofee ca jàkk ji noonu marwaan ñu taxaw ba ba mu nangu jaayante gi ñu bari daal di jaayante gi moom mu ibnu siyaad ñoom eh, bi jaayante gi mate nag mu yab leen madina yabal fa ab arme ngir mu nangoo ko ci ka fa nekkal ibnu Zubayr daal li takk ab armu yebal ko Iraq ngir mu foqar ci ko moom itam noonu la yeble it ca Misra armo bi Marwaan yebaloon ca Iraq mi ngi ci jiitaloon Xubayb ibnu Ziyaad ni ko na dem koofa bu leen gañee na ko daganal lu mat ñetti fan waaye bi ñuy dem ci yoon wi bi arme boobu di dem tax Ubaydullah ibnu Ziyaad jiite ko lañu dajeeg am mbooloo ca yoon wa te mbooloo moom yi ñu di leen tuddee ak tawaaboon mbooloo mu di mbooloom suleymaan ibnu surat mi jóg di dem fekk na suleymaan suleymaan ku ñuy wax suleymaan ibnu surat lu mat fukki junni ak juróom-ñaar daje fa këram di sàkku dereti Xuseyn ba ñu demee ba dogu ci war a dem saam ngir wari ibnu ziyad ba ñu waxee dañu ni li ñuy jëkk a lijjanti mooy jami ibnu ziyad am na sax ñu wax ni waaw te ñoo ginnaaw nu ñuy réglé ji deretu Xuseynu ca saam te ñi ko rey ñu ci bari ñu ngi fii ci koofe gi dëkk feek ñun ñu ni dañuy jëkk dem seeti am Ubaydullah ibnu Ziyaad ma ma joxe woon digal li ba rey ko ba noppi buñ noppee doog a dëpp si fii noonu ñu daje fa kër Suleymaan ibnu Surat lu mat fukki junne ak juróom-ñaar daje fa ñu ñëpp ñu sàkku dereti Xuseyn waaye nag ni ñu baaxoo ñoom waa fa rek ba mu demee ba dogu ba caaxaanal ba dem képp des ci ñëpp dañoo deltu gannaaw ba mu des ñeenti junni ak armab Suleymaan boobu nag moom lañ doon tuddee jaysu tawaabiin way tuubi ki leen jiite ñu tuddee ko kilifa way tuubi Suleymaan ibnu Surad al Xasraji ab saxaabiyu la bu baax jaamukatu yàlla la woon ku dëdd woon àdduna la jële na ci yonante bi ay ahadis yoo xam ni nett nañu ko ci saxiixu Buxaari ak muslim suleymaan ibnu surat mi ngi àndoon ak sayiduna aliyun ci mawqiatu siffin suleymaan ibnu surat mi ngi bokk ci kenn ci chia yi nga xam ni dañu daan daje ci këram ngir jaayante ak Xuseyn suleymaan ibnu surat bokk na ci ñu bindoon xuseynu bataaxel ngir mu ñëw iraq ñu ñu nag dañoo gis ni ginnaaw ñoo sabab dikkuk xuseynu ci iraq ba noppi seetaan ko ba ñu rey ko moo ko njabootam loolu yi dafa tar ci ñoom lool ñu am ci ak rëccu ci li ñu def moo tax nag ñu jëmoon saam ngir di rey ubaydullah ibnu ziyad ñu daje ci yoon wi ñoo ko armée bu waa Sàmbo bi bi ñu dajee fekk armo bi mi ngi jëmoon Iraq ci ndigal li ko Marwaan joxoon ñee it bi ñu jógee ñoom jëmmi Ubaydullah ibnu Saad képp lañ soxla ñu waxanteeg ñoom ne leen ñee ni leen da di wàcc si ci àtteeb euh, Marwaan ñoom itam ñu ni leen li soxla ci yéen yéen itam mooy ngeen jëbbal nu Ubaydullah ibnu Ziyaad bu ñu ko reyee suñu yoon nekkul nekkatul ci bi ñaari wàll yépp gàntalee lañ ñee di sàkku moo tax xeex bu tar dox na seen diggante ñu xeex xeex bu metti ba waaye nag armub saam bi ñoo leen gañe ba rey Suleymaan ibnu Surad moom yi ña ca des daw dellu koo fa noonu la armo bi jamono iraq moom loolu lañu dajeel armo bi mu yabaloon misra mu yebal ab arme ca misra moom marwaan waaye ñoom bañ demee nangu nañu ko ci ka nekkoon te nekkal fa abdullah ibnu zubayr muy abdurahman ibnu jahdam bu dee arme bi mu yebaloon madina ngir mu nangu ko ci kafawu nekkal ibnu zubayr bi jaabir ibnul aswad ba mu àggee madina jaabir dafa daw bi mu dawee naaibi ibnu zubayr ja nekk ca basra ker ya ab arme moom itam yabal yónnee ko madina ngir ñu sowe ko ci arme marwaan boobi bi ko xubays ibnu dul ja déggee te moom mooy kii marwaan yebaloon dafa daldi dëpp di daje ji ak ñoom waaye ibnu Zubayr it ma nga ca Màkka dégg na ni Marwaan yable na Madina ngir ñu foqar ci si ko moom itam mu yaba fa ku ñuy wax ibnu Sahl ngir mu toog Madina wutu fa koo ke daw digal ko it ni ko boo demee na nga sàkku na nga wër Xubays ba jàpp ko ba mu demee fekk na Xubaysu di daje ji ak armo bee jóge Basra mu dabi leen ba leen dabee ca fa ñuy wax rabaza foofu la reyee xubays ña ca des daw ña ca des lu mat juróomi téeméer ci ñoom làqutu ci madina ginnaaw bi ñu wàcc si ci àtteeb abbas ibnu sahl mu rey leen ñoom ñépp ña ca rëcceeku si néew daldi daw dem saam loolu ci jamono yi Euh, maanaam mm, xilaaf ak Abdul Malik ibn Marwan ci la loolu mottali ko ndax Marwan bi mu ko yabalee yëpp daanaka juróom-ñeenti weer la am ci xilaafa gi faatu doomam jooju di Abdul Malik wuutu ko moo tax arme boobu jëmoon Madina euh, bi résultat bi jeex mi ngi jeex ci jamono yi Abdul Malik ibn Marwan kon ñetti armo yi euh, marwaan ibnul xakam yabaloon benn bi iraq fa mujj mooy ba mu dajeek euh, arme boobu nga xamante ni waaye tuub yi muy at tawaaboon yi ñoom la dajal foofu yi ñu xeex ba ba ñun ni ñu reyee suleymaan ibnu surar ni daw dellu koo fa at moom yi ci la euh, ibnu zubayr folle xubayd euh, fole xubaydullah ibnu ziyad euh, abdullah ibnu yazid alxatmi falfa abdullahi ibnu mutia ci at moom at moom yi te mooy atum juróom benn fukk ak juróom ci gàddaay gi ci la xew-xew boobu amee woon mooy xeexub Suleymaan ibnu Sulaymaan boobu ak waa saam yooyu xew-xew bi ñu tuddee ko waqaatu ayni warda waaye ba ñu delloo ba ñu delloo koo fa ñoom ñu ñu dàq lañ fa dajee ku ñu wax al muxtaar ibnu abi ubayd as-saqafi waaye mu xamal leen ni leen nekk ci dëgg te it danaa taxaw taxawaayu suleymaan ibnu surat te it useyn moom ñi ko reyoon dees na leen rey te it ci dara noonu ci atum juróom benn fukk ak juróom benn ci la muxtaar ibnu abi ubayd moomu daldi dem koo fa nangu ko ci ibnu mutia ma fa nekkaloon ibnu zubayr daldi tàmbali nag di lijjanti ñi rayoon xuseyn ku mu ci jàpp rey la noonu la ko toppe ba rey ubaydullah ibnu ziyad mi nga xam ni moo jiite woon moo joxewoon woon ndigal li moo doonoon kilifa ca Kuufa jamono ba ñu rey Xuseyn te moo leen joxoon ndigal li mooy li ma waxoon léegi mooy armobo boobu bii nga xam ni moom la Marwaan yebaloon ngir ñu nangu si Kuufa te ñu ñëw ba ca yoon wa ñu daje fa ak euh, arme tuub way tuub yooyu te Souleymane Ibn Soulat jiite woon ko ba ñu leen gañee dañoo jàll wax nañu ni daje nañoo seen eh, ñu ñu amee ak noonoo ci yoon wi ba kalewu nañ ci yoon lu mat at di xeex ak ñoom doog a jàll si bi ñu jàll see nag ci la Moxtaar moom yi yabal ku ñu wax ibrahim ibnul ashtar mu dajeeg ibnu ziyad ab xeex bu tar dox seen diggante waaye foofii la reyee moom ibrahim fa la reyee moom ubaydullah ibnu ziyad ak euh, ab lim ci ñam àndaloon dagg seeni bopp yët ku muxtaar noonu muxtaar yab la ca simru ibnu dil jawshan mi nga xam ni moo jiite woon arme ba moom itam moom mi jiite woon armo bi reyoon Hussein te bokkoon ci doon soññe ci rey yi moom itam ñu rey ko noonu muxtaar yeble ci xawli ibnu yazid al asbahi te mooy ki daggoon bopp Hussein ginnaaw bu mu daanoo moom itam ñu indi ko ci muxtaar muxtaar digle ñu rey ko lakk ko noonu muxtaar yeble ca hakim ibnu fudayl Hakim ibnu Fadayl moom mi moo rekki woon Abbas ibnu Ali ibnu Abi bis bañ raya Hussein waaye moom itam bi mu yónnee ci moom ñu jëli ko ña ko jëli woon jëkk muy agsi dañu ko rey ngir ragal ay mbokkam def intervention noonu Muxtaar yemle ci Yazid ibnu Warqa te moom itam Yazid ibnu Warqa moo rey Ubaydullah ibnu muslim ibnu xaqil waaye moom ñu sànni ko ay fett ak i xeer ba mu daanu ñu taal ko noonu muxtaar wër sinaan ibnu anas moom itam daan woote ni moo rey Xuseyn waaye ñu fekk mu daw dem Basra mu màbbu këram Muhammad ibnul Ashans dafa dawoon dem ca Mus'ab moom itam Muxtaar digle ne nañu màbbu këram tabax fa kër Hajar ibnu Adi ndax moom itam Ziyaad moo màbboon këram kon nañ màbbu këruk Muhammad ibnul Ashans tabaxal fa Hajar ibnu Adi kër noonu muxtaar yable ca omar ibnu saad ibnu abi waqaas mi nga xam ni moo doonoon kilifa ak arme ba moom itam arme bi rayoon Xuseyn noonu la yable ñu rey ko dagg ba indil ko ko wax nañu ni rey nañu ci waa Koofa ca ña fekke woon reyu ko Xuseyn lu ñaar téeméer ak ñeent fukk ci ay nit ginnaaw bi nag lañu rey muxtaar moxtaar ñi ngi ko rey euh, ci loxol mbooloo mu ànd ak Musab ibnu Zubayr ma Abdullah ibnu Zubayr tegoon foofee ci Basra mu nekk fa kilifa ginnaaw bu mu follee Xaaris ibnu Abdullah moo tax ñu wax abdul malik ibnu umayr wax na ni dama dem ca abdullah ibnu ziyad fekk ñu teg ci kanamam bopp xuseyn daal waaye waat naa ci yàlla ni diir bu gàtt laa am dem ca muxtaar ibnu abi ubayd ma fekk bopp ibnu ziyad mu nekk ci kanamam ñu teg ñu tegal ko ko daal ni wallahi bu gàtt laa am ñëw ci Mus'ab fekk ci kanamam boppub Muxtaar waaye diir bu gàtt laa am ñëw ci Abdul Malik ibnu Marwan fekk bopp Mus'ab moom yi ñu tegal ko ko ci kanam kon loolu yi ay xew-xew la yoo xam ni mooy li xewoon ca gannaaw bu ñu reyee Xuseynu ca Karbala mel ni kon xissa bi dinañ ci jàngate ay mbir yoo xam ni lu mat a bàyyi xel la la ci jëkk mooy ñu gëmee ci dogalub suñ borom yàlla bu dogalee mbir dara du ko dëpp xel mu rafet du ko dëpp xam-xam bu bari du ko dëpp cofeelu doomu aadama du ko dëpp mbàññeelu doomu aadama yi du dëpp dogalub suñu borom ndax Xuseyn bi mu laata jóg ay boromi xam-xam ak boroomi xalaat ñépp joxe nañ seeni xam-xam ñu joxe seeni xalaat kenn ku ne di ko laabiire ci ñàkk gën dem Iraq waaye loolu lépp dëppul Xuseyn wax nañu ni bi mu demee ba làng ak Harr ibnu Yazid am na ñeent ñu ko fa fekk ba ñu waxee moom dañ ko ni yow di ñeent mbooloo mi nga àndal bu ñu leen doon nattale ñii nga tollool muy ñii Harr àndal képp lañ leen di nattaleel ñoom ngeen dinaw doon teel te koo fa ma nga fees dell ak i fas ak i armo te ñun ñëpp ñu jëm si ci yow ñooñu ne ko ñu ngi lay ñaan ci yàlla nga bañ nga bañ a avancé benn sabre di jëm koo fa waaye Xuseenu ni leen jazaakumullahu xayran yal na leen yàlla fay aw yiw waaye loolu doxul nag loolu dëpp ko xissa bi danañ ci jànge am solo gu diisoo am solo ci mbir mu mbooloo bokk diisoo ci mbir mu mbooloo bokk yàlla daf ko dégle ci alxuraan dégal ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi gën a mat am xel ci nit ñi ni ko wa shaawirhum fil amri naka noonu suñu borom melal jullit yi ci ni wax amruhum suura baynahum seen mbir diisoo lay doon ci seen diggante seen biir moo tax saxaaba yi daan ci dox waaye li ñuy xamal am solo gu diisoo am solo mooy bi muawiya radiallahu anhu ñëwee dogu woon ci fal Yasid doomam te sukkandiku ci yenn ci xalaat rek diisoo ba yaatuwul lool indi na ab ŋaayoo ak coow lu bari ci biir jullit yi danañ jànge ci xisa bi ne gannaaw buñ xamee ni xëccoo bi mi ngi doxoon ci diggante mbokk yoo xam ni mbokk bokk nañu ci wàllu deret bokk it ci bokk yit jenn diine te it mbokku deret gi terewut xëccoo bi mbokku diine gi terewu ko ana luñ ciy jànge danañ ci jànge ni nit ku ne gannaaw bu ko dereti boppam gënalee deret ju ne mbokki boppam gënal ko mbokk yépp it biir mbokk goog yi maama ma gënal maami keneen bàyyi ma ko gënal bàyyi keneen bopp ma ko gënal jeneen jeneen jëmm bu dee ci wàllu diine it danañ ci déggee ni ndekkee nit ku ne diine jamu tànn moo ko gënal diine yépp waaye bu demee ba bokk ak nit diine it nag gis-gis ba mu am ca diine ja gis-gisam moo ko gënal gis-gisu keneen kon wuuteeg gis-gis yooyu ak wuuteeg yëg-yëg yooyu feeñ na ci biir xisa bi ngir ñoo bokk deret ji bokk diine yi ba noppi juye yooyu di am ba lii am am danañ ci jàng it bon gu ger bon danañ ci xame it ni nit ñi ñu ëpp ci nit ñi ndekete alal lañu gën a sàmm ci seen wëlër ndax lu ñu mën jàpp boo leen neexalee alal ñu bàyyi lañu jàppoon feeñ na ci xisab Xuseyn ndax bi mu dajee ak faras daq bi mu ko laajee fa nga bàyyi ko lu fa xew dane ko xoli nit ña yow lañu àndal waaye nag seeni jaasi day banu umaya lañu àndal moo am ñeneen ñun dajal bi bi mu dajee ak Harun ibn Yazid ñeent ñoo xam ni dañoo jóge Kufa seenu laaj leen mbirum nit ñi ci seen gannaaw kenn ci ñoom ni ko kilifa yépp de ñoom dañoo takkatoo contre la ngir dañ leen a ger ger moo moo nangu cofeel gi ñu amoon ci yow jox ko ñee ne ko nit ñi ci des nag ñëpp seeni xol moom yow la àndal waaye seeni jaasi day Banu Umayya la àndal foofu dañ fa gisee li tax suñu borom araamal ger def ko mu bokk ci bàkkaar yu mag yi kon yal na ci ab jullit mu xam bon gi nga xamante ne ger bon na ko ci ak li mu yàq ci ab société ger dafay dëpp ab xol mu jóge ci ak cofeel jëm ci ak noonu wala bu jëmul ci ak noonu dana ko soppi ba yóbbu nit ki ci mu jëflante yow jëflante ku la noonu te fekk ne dañu ko neexal rek loolu feeñ na lool ci wax jooju waa ji wax ni ko seeni xol day yow la àndal waaye nag seeni jaasi banu umay la àndal ngir dañ leen a ger ba nangu seeni cofeel waaye nit kiñ soxla mooy nit koo xam ni xupp du ko dëpp xëpp it du ko dëpp nit kooku mooy dëgg dëgg nit waaye feeñ na ci it jikkoy xuseynu akuk ak dëggoom dëgguk xuseynu ndax muawiya bi mu demee ba bëgg a fal doomam yazid ngir mu wutu ko xuseynu dafa déclaré ni dakkaruma te loolu mooy jikko jiñ soxla ci ab jullit dëgg te mooy lépp lu dakkarul nga ni dakkaru waaye moo gën feeñal dara ci kaw ba noppi nëbbu dara ci biir loolu jikkoy naafeq la nit ku ak nitee mat sëkk waxuma sax ab jullit bu ak njullite mat waaye nit ko ak nitee mat sëkk rek du waaw te la ëmb ci biir xolam nit ku ak nitee waxuma la nit ku am diine du ni waaw te fekk déet nekk ci moom naka noonu bañ gi om ibnu omar bañ ak abdurahman ibnu abi bakar bañ giñ bañ neexal bi abdurahman bañ ko joxee neexal bi dafa gàntal ibnu omar biñ ko se joxee téeméeri junni daf koo jël waaye biñ proposé ni dañ fi bëgg a teg moo dañ fi bëgg a teg Yasid dafa gàntal kon loolu war nañ koo jànge ci ñoom muy boo nee waaw na waaju doon waaw waaye bu dul waawit taxawal rek ni ni ni déedéet diine jamono bu ne nga ni déet te déet ji dëgg déet ji di dëgg ci yow moo ko gënal nga ni waaw te waaw gi du dëgg ci yow danañ ci jàng yit ni juyoog jës-jës yi mbir la mu sunu borom def ci àdduna wuute ay gisin ak wuute ay déggiin mbir la moo xam ni sunu borom moo ko def ci ci ci biir moo ko def ci nit ñi wuute ay déggiin mbokku diine du ko tere mbokku deretit mënu koo tere am wute ay déggin mbokkuk diine mënu ko tere am mbokkuk deretit mënu mënu koo tere am danañ ci gise it ni xëccoo yi am yi amoon jamono boobee ci xew-xew ci jamono yooyee ba fii nu toll mooy liy dox ci àdduna bi te du fi jóge ba mukk ndax bépp organisation boo am rek dana jub ci ñenn ñi waaye nag du jub ci ña ca des bépp état bu taxaw dana am ñu mu baax ci ñoom waaye dudul baax ca ña ca des loolu yi mooy li suñu borom dogal ci kaw suuf te loolu feeñ na lool ci xissa bi ba indi yëkkati ay ngànnaay ba indi xeex yu tol noonu yi ba indi rey kilifa gu tol noonu te loolu ñu ngi koy dund ba ci suñu jamono bi léegi bii bu dee noonu fii ci suñu réew mii dañoo habitude wu jël ay jaasi waaye nag lu dul jëli jaasi rek mi ngi dox ci diggante yi ndax xeexum média bi ñee ña ngay jëw seen mbokki jullit ñee ña ngay tafsiq seen mbokki jullit wax ne ay kàccoor mais àgg nañ sax ci di xool seen mbokk jullit jàpp ni ñii duñ ay jullit xëccoo bu ne am na fi xeetu ger gu ne am na fi xeetu bañante wu ne am na fi xeetu doxin wu ne am na fi waaye nag dañoo baaxoowul yëkkati ay jaasi waaye nanu xam ni diine dafa ñëw ngir jikko yooyu yi doomu aadama baaxoo na jikkoo mu di ko faj mu ñëw di ko faj ndax sunu boroom dafa bëgg jullit bi jàppe seytaane ab noon mbañeelam gépp ak xeexam bépp mu jëme ko ci xeex seytaane ak bañ seytaane ak noonu seytaane moom la ñu digal inna seytaana lakum aduwun fattaxiduhu aduwa lanum seytaane képp lanu suñu borom wax ni seenum noonu la na ngeen ko jàppe ab noonu waaye lum nu wax ci ci ci diggante ak suñuy mbokk mbokki jullit yi innama al muminuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum jullit yépp ay mbokk lañ lanu ci sunu borom digal mooy defare diggante mbokk bi lan lañu wax ci ki nga xam ni bokkuñu diine kooku benn mu bàyyi ñu am jàmm ak sun diine bu boobaa nañ ko bàyyi mu am jàmm moom itam laa yanhaakum allahu an alladina lam yuqaatilukum fi ddin wa lam yuxrijuukum min diyarikum an tabarruuhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbu almuqsitin suñu borom dafa wax ni ñi nga xam ni terewuñ leen seen diine xeexuñoo yéen ci seen diine aar yàqaluñ leen ci seen diine dara buñ leen bàyyee ngeen liibar na ngeen leen bàyyi ñoom itam ñu liibar te ngeen dox ak ñoom ci jàmm loolu yàlla terew ko waaye nag saa bu nit jógee nara dox si diggante ak sa diine yi la ca digal mooy ci bañ dara loolu ay tomb la yoo xam ni bëggoon nañu ko jàngat ci xisab sayiduna Xuseyn ndax nit ñi xam ne e, aw ay buñ ko taalee fa ñuy jàpp ni fa yam du fa yem ndax bi ñu waxee ba rey satu yonante bi sallallahu alayhi wa ci bés boobu yi ak reyin wow yi doonte seenu nguur lañ bëggoon mu jàll it nguur gi jàllut biñ defee jëf yi ci Madina doonte bëggoon seenu nguur jàll moo tax taxut mu jàll bañ jëfee jëf ji ca màkk bëggoon nguur ga jàll taxul mu jàll kon li am solo mooy jéem a tegu ci ligne bi nga xamante ne moom la suñu borom bëgg buñ ca tegoo moo garanti suñu sécurité yal nanu yàlla defal ak dégg na nu yàlla defal ak jariñu yal nanu suñu borom defal tawfiq yal nañu sunu boroom defaral sunum réew defaral nu xol yi yal na sunu boroom sotti ndox mu sedd ci ay yii di tàkk yal na yàlla téye loxol ñiy taal ay ay yal na yàlla jàppale ñi bëgg jàmm di wax tey wax jàmm tey def jàmm tey xëcc jàmm ci àdduna bi yal na leen sunu boroom jàppale yal na sunu boroom taxawal diineem yal na sunu boroom eh, jàppale mbooleem jullit yi ak fu ñu mën a nekk te mbooleem xiiroo yi ak ŋaayoo yi ak bañante yi ak xeexoo yi nekk yi suñ biir ba tax mënuñoo dox meetar ba tax suñuy noon jamono bu ne ñuy am ci ñun aw yoon yooyu yal na ko yàlla faxas ba mu set jërë geen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.